asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bi ma leen nuyoo euh, bëggoon ñëw ak ay kaddu yoo xam ni dafa jëm ci wax ji ku ñuy wax Cheikh Gadiaga wax euh, am ca loo xam ne daf koo jëme ci alaaj Njuga bi bala ma sori ci wax ji nag dama leen koy digtal ba noppi ñun nag dañoo sos njaxate parce que Soxna Mané Gadiaga dafa contribuer ci dund Sëriñ Tuubaa loolu nag dañ koy mettitlu di ko naqarlu di wax na kilifa yi waa Safinatul Amaan defoon nañ ci benn enquête ñu tegaat ko ci suuf nanu jël jigéen ñooñu ñu génn leen Touba parce que ñoom ak Duudu mbay rek ñoo am àtte lépp nag loo xamante ni defoon nañ ko naan seen bàyyi defoon loolu ci jumaay tubaa ji si amar bi mu ñëwee dafa jël yëpp yóbbu ca poubelle ba defaat fi yeneen kon nag Alaaji Géey loolu il faut ñu wax ci voilà kon wax jàngoog maanaam vidéo bi gën naa gudd waaye dañ caa tànn li nga moom moo Euh, ñu gën a soxal muy wax ji nga xam ne da koy jëmale ci alxaaji Babacar Kebe ñu koy wax njugo te jaarale ko ci doomam nag joo xam ni euh, ku ne xam na ni euh, tànk ya baayam jaaroon ca la jaar dama daje ak sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdul Xaadir barki démb mu di ma laaj ab taalibeem ku ñu wax mbaalu Kebe ma ne ko ma mu ne ma ah man de moomi Kébé dama dama koy wax ni ko eh, yow daal yaay alaaji njugo mu jigéen mbaalu mooy alaaji njugo mu góor eh, nga xam ne kon loolu tënk na te firndeel Pastef bi nga xam ni eh, moomi Kébé am na ko ak doomi njugo yëpp ndax àgg nañ ca ci waxtaan ñoom ñëpp Euh, kon bu nit jógee walbatiku di yëkkati wax ju ñaaw ci moom waxuma la collègue gi ma séq ak moom waxuma la mbokk gi ma séq ak moom waaye doon gi doon sama mbokkum taalibe rek dama seere jëf ju mu def ci yoonu murit jëf joo xam ni mën nañ ni jëf ji jëfi pionnier la ca ak wàllam kenn defagu ko woon te it euh, euh, ku defati lu ne mel it ci ay tànkam rek ngay jaar yaakaar naa Cheikh Amar moomu muy wax sax deful njugoo euh, moroom bàyyi la ko def def ko royuwaay ndax jëf jëm daan jëf ca tànk yooyee la topp di ko jëfe ndax ndax ndax xam na ko ump ko lamp boobu nga xam ne li nga xam ne Alaaji Njigo Kebe defoon na ko ci jumaa ji nag mun nañ ko dindi sànni ca sën ba moom dafa gàtt xel ndax jumaa ji yaakaar naa bañ ko dalee def rek léegi yàgg na Euh, te at mu ne wala ñaari at wala fukki at yu ne la ca nekkoon lépp ñu dindi ko indiwaat ci leneen kon bu fekkee làmp bi nga xam ne El Hadj Ndiouga Kébé da ko cee defoon nee na dañ ko dindi sànni ci àll ba te moom la waa njabootu El Hadj euh, Ndiouga daan tiitaroo mooy amul xel ndax euh, jumaa ji Sëriñ Fallou ko defaroon soroor bi ay colostra woon ci biir peinture woon bu jaune ak bu bleu bi suñu Abdoulaye ñëwee defaraat ko ñu soppi ko. indi fi marocain yi euh, ñu def ay arabesque sëñ Saliou naka noonu bi mu ñëwee lu bari ci li fi sëñ euh, Alaaji Njugo defoon wala sëñ Saliou defoon euh, sëñ Fallou defoon ak sëñ Abdoulaye defoon da koo soppi gën koy yeesal gën ko rafetal ma jàpp ni nag sax lampo ba nga xam ne dafa jóge ci jumaa ji dafa beneen waru foon a jógee la tax ñu def ko ñàkk xam valeuru lamp ba la ndax lamp ba ay cristaux la yoo xam ni yu cher la nga xam ne du doon luy démodé lu mu gën a yàgg rek gën a am valeur soo demee Europe da nga fa gis yoo xam ne dañ koy tiitaroo di wax ne am na juróom téeméeri at wala juróom benn kon dafa nekkoon euh, patrimoine boo xam ne waruñu ko woon jëlee sax ci fam ne ndax du luy du luy xeewi du luy démodé du luy yàqu valeur la mën naa ne moo ko or wala jamaa ñoo am ñooyam lu mu gën a yàgg rek euh, gën a ëpp valeur wax ji nag euh, yaakaar naa ni ñëpp la naqari euh, Sénégal yëpp la naqari ndax kenn ku yeewoo Sénégal ku mën a waat ni euh, muusoo jariñu ci liggéeyu ñàkku alaaj ñu ko kebe yaakaar naa ne amut rawatina murit yi rawatina Touba te loolu ñëpp seer nañ ko kon euh, wax ju ñaaw ñi mu wax waxu ko Ndiouga Kébé waxu ko famille alaaj Ndiouga Kébé waaye Sénégal yëpp la ko wax wax ko murit yëpp la ko wax rawatina nag njabootu Serigne Touba gi te Cheikh nag moom damaa jàpp ni rek li wolof di wax naan nit bu namee dóor rek gannaaw ko day xasan ndax moom euh, màggum jëmum toll ne moom fa sute yéene liggéey fa sa yéene dund rek ci euh, sibooru makaro xastaate ak chante nekk maître chanteur bu fekkee ci loolu la fas yéene dund na ko wóor ni bu teddee benn fan dana torox fukki fan ndax ci kaso bi la dëkk ku ne ku ne xam na ko ne li muy li muy li muy fanaan prison moo ëpp na muy fanaan këram te loolu lépp ak jubadeem ak bëgg tedd te nanguwut a sonn doo nga xam ne di ko def waaw moom it nag day ko koo xam ne ku ñuy santaas la ak kenn ci famille ñu ko kebe ndax nit la ñoo xam ni amuñu lan lu ñuy nëbbu wala lenn loo xam ne lu ñuy làq ci genn wet nag waaw bëggoon na ko santaas nag yónni fa nit koo xam ne am mbàkke mbàkke sax la fa yónni wala mu yóbbante ko fa xamal ko ni daal na ko jox ci xaalisam bi wala boo ko defut moom ci dëkk bi la dëkk dana leen xas mel ne nag lii di ab ñaamal yi rek pour bëgg bu exécuté wul moom yi exécuté wul mu jàll ma jàpp ne nag ko rek daa daa nammaat fa fa fa miin lool rek muy muy kasu ba ndax euh, famille ko Kébé moom du ñu du ñu ñoo xam ni ils vont se laisser faire euh, te yaakaar naa ni euh, bala ñoo réagir sax taalibe mu yi ak njabootu Serigne Touba ak ñooy njëkk réagir te Ndiouga Kébé liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba kenn mënu ko gàkkal waaw moom nag li ma koy digal mooy na jéem a liggéey jàpp nañ ko fu ne am mbàkke mbàkke la lu ne lu ne def na ko fi lu ne def na ko fi loolu mooy métier am waaw damaa xamul kooku nit ku sax nu muy àndeek moom maanaam nu ko nit di àndeek moom de maanaam nga di ko def euh, di ko def nawle sax wala ngay ànd ak moom wala ngay nangu mu dugg sa kër dong dong dong man loolu laa xamul sax nu ko nit mën a euh, defee tax xam ko xam jikkoom waaw loolu rek laa ma ne woon danaa ko ci wax ndax bu mu xool def ci tàng lool ci wax ju bon ji te wax tey tey tey wax ju ñaaw joo xam ne teguwut fenn lu dul bëgg alal rek te nanguwoo sonn loolu nag ku ko def dugg nga coono bu rëy nag coono boobu ngay bañ euh, ca ngay dëkk waaw ndax alal moom kenn du ko am euh, teraanga moom li seen tuwaay di wax ni aizullah yunaalu illa bi kat yi nit ki moom bala ngaa tedd da jaar ci alkande wax na bu fekkee dafa fas yéene rek fenaanal nit ñi ak waral wor nit ñi ak sibooru nit ñi rek la fa fas yéene def métier yore ko këram kon ab coono dugg na ko asalaamaaleykum wa rahmatullah